auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen waa Daaru Salaam si faaw ñëw leen siyaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defaroon na kalaaxira di wax ne Daaru Salaam si faaw seet ku bëgg mu seetal la wax la sa sarax wala wax la sa càngaay foo mën dem defe ji ko fa nga dem defe ji ko fa en dana defar ay ndomb yoo xam ne day dox ci kaaraange ak xeetu wërsëg. ñoo leen siyaar bu baax te dañu leen andi lii aar kër ba dara du fa mën a yàq dara kër mag ñi dañ ko daa aar bu njëkk léegi nag kër yi dañ leen bàyyi rek kenn aaratu leen kenn du fa mën dara lii daal boo ko defee dangay ngay wut reen poftan boo wutee reen poftan nga bind ca wal asri innal insaana la fi xusrin illa lazina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri wala ñetti aaya la guddut da ci wut lu mën ñeenti reen boo reen bu ne nga bind ca wal asri ba jeex nga dem ci koñu kër bu nekk muy ñeenti koñu kër yi nga suul ko ca insha allah rabbi boo ko defee kër ga dara luy sànni liggéey walla lu bon ku ko fay def wala ñu jëme ko boroom kër gi dara lu ca mën dara xeetu protection la ci wàllu kër beneen bi des bu baree kër gi nag làkk nga xam ne da mucc sawara day wut reen bu ñuy wax reenu ngoloñ mu wut ñetti reen mu dem ci koñ bu ne mu suul reen bu ko mënee tamit mu suul ci digg bi beneen waaye bu ko mënul tamit na dem ci koñ bu nekk daal ñeenti koñ yi mu suul fa wut ñetti reeni ngoloñ ndax boo amee ñett amal ñett mu juróom benn nga amaat ñett mu fukki reen ak ñaar boo ko amee nga xaajale ko nag mu ne ñetti reen lay doon nga dem ci koñ bu nekk nga suul fa ñetti reen incha allah rabbi kër googu tamit lu sawar a bari bari tamit dana ci mucc kon ñoo leen di siyaare leen ñaanal jàmm gudd fan wér xewul yaa defar àdduna ak alaaxira